20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak mbay Guy gi moom laa koy jagle juróomi grand combat beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Badara Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane Ndiaye da ko fay sargal maa béy borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés bi ci boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs annexe boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo Monix Bet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène national ñu ànd ci ak Bawol production asalaamaaleykum mbokki internautes yi di leen baax di leen ziar di kilifa kilifa aada yëpp du nuyu sama notre responsable moral daat mu chasina daat du nuyu kilifa diine yëpp di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm tey nag euh, ñu ngi fi si golf fas yéene waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Socé Sim euh, di ko félicité waat nag bu baax a baax ci victoire bi nga xam te ne ñoom moom lañ jógee Socé Sim nekk école de lutte nañ ko nag combat Balla Gaye ak ki moom mooy Tapha Tine na ci li nga xam te moom mooy préparation bi te ku ne Socé Sim na Balla Gaye dañ koy bàyyi mu leen dugg ci waxtaan bi Socé ngi lay nuyu. Fane Madia ñu si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa adduna bépp waaw ñu ngi sant waa adduna bépp bu baax a baax di sant njabootu làmba maa ngi sant sama waa dëkk bu baax baax a baax a baax a baax waaw di sant waa golf yi ma fekk sa fii nii. su ko sim euh, tey su Balla Gaye Tapha Tine ñu gis ne dëpp ba ko jëlee ba tey combat bi ci ànd mais combat bi ba mu ko jëlee coow li bari mais su ko mi daan ànd ak Balla boo taxee ba ñuy jox ki moom mooy Tapha favori loolu na la lay. waaw loolu c'est normal parce que tamit euh, li tax ñu jox Tapha Tine favori parce que Balla nekkoon na si benn dynamique boo xam ne nii. am nga nit ki tamit balaa nga joxe favori day fekk nga xam ko xam li muy xam li muy waaj lan la wala la mu la mu lan la aussi tamit xam naa ñi ñi seen xalaat lañ lañ yor rek xam nga ku si nekk ak sa xalaat ñoom seen xalaat lañ jàpp aussi tamit moo tax ñu jox Tapha Tine favori waaye ñun ñi nekk ak Balla nekk ak moom di préparer ak moom ñun ñun décision bi ñu amoon wala gëm-gëm bi ñu amoon mooy Balla day daan Tapha waa xam nañ ko parce que ñoo pare ak moom ñu xam nañ coono yi mu daj moom te aussi tamit xam nañ làmba ji lan ko jaral looloo tax ñu xam ne lu mu métti métti métti métti métti Balla day daan. ñu gis ni moment mu ko jëlee coow li bari Balla bi baaxul Balla Gaye Tapha Tine ko mën ñu gis mu def interception ñëw ba mu defee interception ñëw gis nga résultat. waaw Balla yow tamit fan ma kenn du la Balla nag Balla mooy làmb Balla dafa neexul ba neexul rek waaye bala mooy làmb Balla bu jëlee combat rek dëkk bi yëngu yow xam nga lool bu baax moom bu jëlee combat dëkk waaw résultat INSEP moo nekk ni parce que bala tamit mu tenir Tapha Tine jàpp ko tamit nañ waxante dëgg Tapha champion la aussi tamit dañ koy ñaanal bu amaatee combat yàlla na ko suñu borom may ndam waaye lii soo ko gisee rek xam ne li mu jële INSEP tamit résultat bi moo nekk ni parce que lu doy ni Tapha Tine nga jàpp ko tenir bëri ak moom xeex ak moom am si ndam lu toll nii kon toll tamit bu fekkoon ne li ngay liggéey li nga liggéey INSEP amul résultat du feeñ. Balla Gaye daan na Tafatine mais des na loolu loo ci wax. na mais des na. non naa la dese yow ku doy ni Tafatine nga bëri ak moom ke ak moom duma ko ah lonk ka caxabal daan ka nga ne des na naa la dese naa la dese la mooy problème bi wala ñoom dañ bëgg bal Balla yëkki Tafatine ba si kaw dóor ko suuf. man gis gisuma lu des wa dëgg yàlla ñun ndam lañ bëggoon te suñu borom defal nañu ko. mais ak Balla bi Balla Gaye bii nga gis am na différence. non non lool lool lool mënul nekk yow est yow mi ñu doon gis 2012 ak yow mi benn la am na différence noonu la demee bala mu ngi jëm mag Balla ay 2012 Balla ay 2012 amul soxna amul ay doom adduna yàlla nii lay parfait adduna yàlla mayul kenn loolu ni nga meloon 2012 nga bëgg ka mel ba am 30 ans wala 40 ans loolu c'est impossible Balla du mag xale bu tuuti la xale bu ndaw man mii waa yow maa nga mag. te man duma mag xale la. ci li nga xamante ne Balla gay gis nañ ko kon ni ko Aziz waxee di yeewu 6 heures du matin di contact ñu gis si Balla Gaye bii da bi entraîné nii ci combat am ak Tapha Tine gëjoon nañoo gis bala Gaye bi nga xamante ne moo bëre ak Boy Niang bi bëreewoon ak Gris Bordeaux selon toi combat bi lan moo tax mu jaraloon. non combat bi moom fan ma jë boo bëggee dégg dëgg moom Balla moom bii def si liggéey parce que combat bi ñoo ko jëloon au sérieux parce que tamit. même bu dul dara Balla suñu xarit la suñu waay la dañ yàgg moom te aussi tamit dañ ko yéene combat bi daf ñu jaraloon combat bi Balla quatre heures du matin la yeewu di dem géej yéeg din su fa jógee dem musculation combat bi entraînement na na mu ware combat bi def na musculation na mu ware combat bi contact na ci lu doy waaw moo tax résultat bi moo feeñ nii Balla bu fekkoon ne liggéeyu si combat bi kon combat bi du yëg sa fii Fatma Dia nañu waxante dëgg. ak Tapha Tine ni mu tollu Sénégal gépp ne Tapha bu jàppee Balla Gaye da koy ma dëbbate lañ koy wax xaw ma da koy moxoñe kan moo moxoñe moroomam kon nañ waxante dëgg Balla xale la Balla champion la bu bu nekkee rek bu nekke Balla kese kese kese kese kese billaay moroomam du ko yëpp. mais nu mu déggee combat bi daan na mais Tapha bi bëre bi bëre ki nga xam te ne moom mooy Eumeu Sène wala Tapha ba daan ñëw am na différence loolu noo koy dégg. non non non non non tafaatin bii la ëpp doole Fane Madia amul différence tafaatin boo xoolee combat bii sax la gën a liggéey parce que ñëpp gis nañu ay vidéo dem na Côte d'Ivoire yékki ay pënam dóor ay wañam def ay affaire am tafaatin koo xam combat bi xam na liggéey na bi mu sima koo sax démb boo xoolee xam ne tafaatin liggéey na. combat bi mystique moo ko gañ. lan non non combat bi mystique gisuma ko si dëgg yàlla combat bi moom. combat man ah man de gisuma si mystique wax dëgg yàlla koo xam ne si stade bi la ngeen boo Balla Gaye kon nan daane tafaatin ah, jàpp naan koo jàpp dina dóor Balla Gaye non non Balla jàpp tafaatin dóor na hypercule bu daal dañu waxante dëgg Balla moo liggéey Balla dafa pare combat bi daf ka pare dafa liggéey si combat bi moo tax résultat bi moo feeñ ni ban mystique moo am. moo xeex moo daan. mais ñooy tafaatin melul woon noonu dégg tey jël nañ ay ay nit yuñ jël ñooy tafaatin bi nga xamante ni tey bi ñu xamoon ak bi tay tafaatin dëgg ñëwul. non non tafaatin moo ñëw parce que Fane Madia képp ku xam làmb tafaatin ba mu duggee si stade bi daf ko yëngal dóor na ay gauche droite am dóor na ay gauche droite am si mëku ne heure bi jot na kon tafaatin moom nan lañ ko jàppee xam waxante dëgg rek làmb ñoom ñaar dañ doon wut victoire yàlla may na Balla Gaye victoire kañ kon nañ ko ko ñaanal rek c'est que tamit làmb moo demee noonu parce que ñu bari mënuñu woon na gëm ne Balla Gaye mën na def nii Tapha Tine kon moo tax su ko daanee rek nit ñi automatiquement dañuy wax ne gaa laaj la lu gàllaaj gàllaaj gën moo fa ñaari mbëru jàppante dóorante kii nga dóor ko ba mu dem ardo mu ñëw nga dóoraat ko mu siggi nga daw lonka ca xabal foofu de mystique amu fa ku dëgg yàlla loolu Balla Gaye ñëwaat na loolu noo koy déggee. non non Balla masul dem. day ñëwaat Balla Gaye fa mu newoon la nekk ba léegi Fatma Dia. Balla mooy làmba. Balla Gaye mooy làmba. Balla Gaye masul masul masul dem. yàlla nag moom mooy bindee nii ci àdduna. waaw yàlla mayul kenn loo xamante ne day jeex déedéet. yàlla mayul kenn luy jeex. bala Gaye demoon na Balla Gaye non non Balla Gaye fa mu nekkoon ba léegi la nekk. làmba la nag. tey bu ñu vitu bu ñu tafaatin daanoon ñaanuñu ko yàlla dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne làmb moo demee noonu ñoom ñaar ñëpp dañ loolu wut kom que Balla Gaye moom la yàlla may ndam nañ ko ñaanal rek xool ay prochain combat am. Balla Gaye fi mu jëm. non Balla fi mu jëm moom bari na. Balla Gaye moom fi mu jëm moom. examen tool moom dañuy SN bàyyi toog xaar. mu ne Eumeu ñu gis coow li bari mais yow nga gisee ate combat boobu. non man loolu man moom man moom du ma ci waa loolu moom parce que Aziz su waxee Aziz mooy kilifa mooy kilifa Balla Gaye ñun moom bu waxee kàddoom ñun amuñu leen loo xamante ne dañ ko si wax non non man moom garaawul man moom man waaw man ku ñëw baax na man amul problème man moom amul problème man moom ku ñëw rek moom naa empereur ah ñooy ñooy empereur de te empereur dafa foor de dafa fort waaw day benn la mooy roi non non roi du avant ma dinañ waxante dëgg na xam nga empereur empereur boo xam ne dañ lay fay six mois loolu ay caaxaan ah nañ waxante dëgg. bari ñu ne empereur ak roi war nañoo mën a su ma sañoon man su ma sañoon sax day bàyyi lamba day arrêté bàyyi. bëgg Balla lan moo ko dese nañ waxante dëgg la moo ko dese yow loo xamante ne jël nga roi jël nga empereur kon lan moo des. examen tool ni bu tekki woon ngeen mu bàyyi sax. nice billaay wallaay la moo ko deseeti ci làmb am nañu waxante dëgg dara deseetu ko empereur du ay caaxaan de empereur empereur moo yëngal àdduna moo léegi ñu gis ne euh, Sococim moom ci lu mu ne Sococim gëj naa bëri luy problème Sococim waaw gëj naa bëri ay mbir la rek ay mbir la parce que tamit àdduna kenn mënul wax lépp waaye man maa ngi sant yàlla bu baax nag gañ naa bëre waaye neew ma bàyyi naa làmb bàyyiwuma làmb man maa ngi si biir làmb ba léegi ay mbir la maa ngi sama bopp nekk sama ruq ànd ak samay mbokk yàlla baax na daal. làmb macha allah su sim nekkoon xale boo xamante ne tey macha allah heure bi waroon naa fekk ñaan naan tukkati roi des arènes ndax mën nga bëre doole jàng fi lépp ngi fi mais problème bi mooy lan Sococim daa amul combat wala Sococim ci yan ci lan la ne ci lan ndax am na ay sa fans yu bëree bëri dañuy bëgg a découvrir Sococim. waaw Sococim mu ngi nii rek Sococim daan ma ja ay mbir la billaay ay mbir la xam nga rek kenn mënul àgg ba ci biir a biir biir a biir yow xam nga làmba bu baax làmba moo nekk milieu boo xam ne dafa doy waar dafa doy waar. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax chaque jour ñu ngi entraîné ñu ngi nekk ci li war a nekk. yàlla baax na daal yàlla baax na. dañ def code. non dañ siy def code baa ñu def si code rek. Mhm. Ah, règlement CNG ah, bi tamit baax na parce tamit boo xoolee làmb benn heure bi mu daan dem euh, dafa guddi quoi waaye am na combat yoo xam ne nag mënul jeex heure boobu parce que boo xoolee combat démb yi man su ma sañoon tey bu làmb demee ba àgg vingt sa baax na waaye làmb dix neuf si koo xamante ne dafa tëgg dix combat dafa doy waar daal dafa doy waar. Hmm. waaw. suma juumul léegi mu tëj saison bi neex na saison bi neex na parce que tamit làmb boo xoolee évolué na làmb dox na mbër yaa ngi bëre te boo xoolee saison ren bii nii nga xool ne bu ma juumul est que daaxul saison yi waaw saison ren bi moo daaxal saison yi parce que combat yi bari na am na ay combat jànk yu si am am na ay combat galaa jëtër yu si am saison bi daal nice moom. nice. Mm-hmm. di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom su ko sim xam te ne moom suñu waay la loolu moom yàgg na di ko jaajëfalaat bu baax di wax mooy sa dernier waaw sama dernier moom mooy sant yàlla rek di nuyu sama waa dëkk waa Tëngéej yëpp waaw di nuyu waa Tëngéej yëpp di nuyu lébu yëpp di nuyu euh, sama benn doom day bu ñu naan Maari Sarr ak ñoomeen Mbay saar ak Mbay Baay Faal ak ñoomeen Xalil maa ngi nuyu ñoomeen Alu di nuyu sama gars yi ñoomeen Jordan gars yi may fréquenté fële na di nuyu sama président Pierre Mboup di nuyu Pape Sow bu sàngal kam waaw di nuyu ñëpp daal di nuyu sama soxna bu baax di nuyu sama famille nag bu baax a baax a baax parce que dañ ma jàppale quoi sama famille dañ ma jàppale bu baax a baax maa ngi nuyu lébu yëpp di la nuyu yow ma Dia ku baax nga dëgg la. 20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak Mbaye Guy gi moom laa koy jagleel juróomi grand combat beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane Ndiaye da ko fay sargal Mabé yi borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs annexe cola boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo 1xBet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production